question à Dame dur de passer après Dame mais bon on va essayer euh, je tenais euh, d'abord par la suite de doyen Habib nuyuwaat askanu Sénégal sargalaat leen delloo leen njukkal Euh, en même temps itam euh, équipe yi nga xam ni sunu sœur Fatima Mbaye ngi ci la nekk ak ñoom laxaat ñi fi jaar léegi les équipes techniques ak les équipes de parrainage ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci saisi yi ñëpp xam nañu saisi parrainage ni mu mettee waaye félicité waat itam équipe yi nga xam ne ñoo doon collecté wàccoon sur le terrain di jëli parrainage citoyen pièce par pièce fiche par fiche marché par marché quartier par quartier mu nekk liggéey boo xam ne du tricherie du caaxaan ñëpp gis nañu bi ñu ci commencé am na journaliste yu fi nekk léegi yoo xam ni bis boobu teewee woon nañu bi ñu nee salaamaaleykum mbir mi tàmbali na Sénégal yëpp nag yëngu ñu ngi jaajëfal sénégalais yooyu di leen wax ne yéen joxewu leen benn faux parenage joxewu leen benn parrainage bu matul parce que ñun ñi ngeen ko jox ba ngeen ñu koy jox xam nañu ni yéene ngeen ñu ko joxee xam nañ ni da ngeen ko dencoon fu sore làq ko bala ngeen ñu koy jox donc euh, lépp pour wax rek ni lii ñu fi woon léegi sénégalais yëpp seetaan ko dafa bokk rek ci sabotage bi nga xam ni moom la régime bi di def parce que en réalité li nekk di organiser du élection présidentielle mais hold-up électoral loolu la ñuy waajal hold-up électoral bi ñuy waajal nag bu kenn yaakaar ni parti politique yi la ñu ko def wala candidat yi ñu éliminer lañu ko def askan Sénégal lañu ko def ndax askan bi moom moo war a fal moo war a folli askan woowu di fal di folli ñoom la ñu nekk di fowee seen avenir ñoom la ñu nekk di leen ne du ngeen non inscrit sur le fichier teguñu ko fenn sénégalais yépp ñoom ñoo bokk yem mais ñu désidé am na sénégalais yoo xam ni dañuy am carte d'identité mais mënuñoo voter foofu la tàmbalee waaye yemuñu ci loolu dañu wëlbatiku di jël les candidats légitimes de l'opposition ñi nga xam ni ñoo ne ci mairie yi nekk ci communes yi nekk ci département yi nekk ci askan wi nekk ci suuf nekk ci kaw di di liggéey di xeex nekk ci développement nekk ci association ñooñu lañu ñu génnee ne leen yéen du ngeen bokkee toog leen ne le dem jëli seen ay candidats fantos yoo xam ne ñoom ñoo leen xam parce que ci seen clan la ñu bokk te lépp dina leer ci kanam tuuti daal di leen ne ngemb leen ngir lan flouer le jeu ngir lan won àdduna parce que ñoom àdduna la ñuy waxaal waxuñoo ak sénégalais yi mosuñoo faale sénégalais yi ndax ku faale sénégalais doo ko xañ a voté àdduna la ñu bëgg a wax na leen xool leen ñii candidat yii ñëw nañu ngemb suñu candidat ndax seen candidat moom bu àdduna bi yëpp ngemboon ko mënta taxaw ndaxte koo xamante ne ñemewuloo jàkkaarloog say moroomu góor nawle bëre ak ñoom làmb ju set wecc kooku moom yow la rek ak sa destin waaye lii ñuy def nii sabotage électoral président Macky di ko def nag avec la complicité de l'administration territoriale l'administration bi nga xam ne mooy gérer élection yi ñëpp gis nañu seen taxawaay décision de justice ñu ne duñu respecter Sénat ñu jël ko du jour au lendemain changé ko de façon illégale terewul changé changement boobu ñu ko changé sax mënoon naa def rôlam parce que moom ci processus électoral bi la bokk mais mu complice noppi ne patt pattaaral toog mel ni comme ñooñu ñu fa tabb Doudou Ndir moo leen gën gën leen dey gën leen bàyyi ba ñoom amuñu lu ñu wax bañ leen table ba li kenn déggatu leen te pourtant fekk nañu ci seen table dossier boo xamante ne dañu ko dañ ci war a yëy yàbbi waaye defuñu ko waaye yemuñu foofu président Macky Sall jël justice bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk sukkal ko ñu ciy def lu leen neex loo xam ni démb Cour suprême da koy wax ba ñu bind ko di ko jàngale ci école yi bu fekkente ne opposition ak sunu candidat di Ousmane ko moom moo ñëw devant cette justice là mbir mi yëpp changé justice bu président Ousmane Sonko présenté woo justice day fàtte day fàtte lépp lu nekkoon jurisprudence fàtte lépp lu nekkoon lu jaaroon démb fàtte lépp lu nekkoon atte fàtte lépp lu nekkoon loi lépp lu nekkoon règlement dañuy créer une nouvelle justice pour lui taillée sur mesure ci gaawaay ci diligence ak ci forme ak ci lépp ci complicité ñëpp di seetaan ñëpp di seetaan ñun ñëpp nag dañ ci am responsabilité responsabilité yoo xamante kenn ku ne da koy jël ba mu mat sëkk parce que ñun ñii tey fekkee 2024 tey ñu nekk le 5 janvier 2024 ñun de démb amoon nañu histoire amoon nañu sax lay ndaxte dañoo vivre woon esclavage defuñu woon dara nag dañoo jaayoon on n'était pas responsable vivre nañ tamit colonisation on n'était pas responsable dafa am ñoo xam ne ñoo ñëwoon coloniser ñu jaañu doon ñu vivre néocolonisation waaw am na ñoo xam ne dañu ñëwoon complot ak suñuy maam ak suñuy ñooñ di ñu di ñu woon fu ñuy jaar waaye tey amuñu benn excuse on est face à notre histoire on est face à notre avenir on doit écrire notre histoire parce que tout peuple a la responsabilité d'écrire son histoire amul benn xeet bu dem bindal histoire beneen xeet amul benn génération buy bindal histoire beneen génération ku nekk yow yaay marqué sa histoire ci sa taxawaay ci sa jëmm ci sa bëgg-bëgg ak ci sa détermination loolu moom moo xew tey mooy ñun peuple sénégalais le peuple présent de 2024 lan la ñu décidé bind ci sunu histoire est-ce on va accepter d'être des demi-citoyens est-ce que on va accepter que ñu ñuy choisiral kan mooy suñu président est-ce que on va accepter arbitrage bi injustice bi persécution bi parce que oui il s'agit d'une persécution dañu am candidat mu tudd Ousmane Sonko gis ngeen li mu dund démb cour suprême kenn xalaatu ko woon parce que jàppoon nañu ni quand même cour suprême bu ñu fa indee exception d'inconstitutionnalité la moindre de choses dina ci yeeyu àddu waaye déedéet defu ko defu ko mu dem au fond jusqu'à pas pas d'heure après avocat yi dinañ ci wax waaye bu loolu weesoo bu loolu bu loolu weesoo bu fekkente ne xool nañu li xaw démb cour suprême sunu sunu candidat le rappel profite aux croyants foog ñu fàttali parce que nag sunu candidat 2016 ba léegi mu ngi subir 2016 dañ ko radier 2017 ñu persécuté ko ci ngëm-ngëmam naan ko salapiste nga Ibadou Rahman nga 2019 ñu persécuté ko ci famille am naan ko sa jabar dañuy muuru yow nangam yow nangam di rey ay militantam Maimouna Sagna fii la ñu fekk Mariama Sagna 2021 ñu jël ko complot d'état teg ko ci kawam rey ay xale stigmatiser ko calomnier ko insulter ko deux mille 2022 ñu def ci moom complot politique écarté ko des élections législatives ñu ñii ñëpp teewee woon nañu 2023 ñu traqué ko violenté ko brutaliser ko séquestrer ko këram barricader ko arrêter ko arbitrairement mais il reste debout il se bat pour le peuple il se bat pour le Sénégal est-ce que le Sénégal va continuer à laisser Ousmane Sonko persécuté de cette façon-là est-ce que nous allons benn yoon tey def cette ce regain li ñuy xaar ci ñun neex na trop doyen ñuy fàttali ko suñuy maam di wax seen i jaar-jaar ñoom de gàcce ma bind nañ seen histoire ñu nekk on est devant notre histoire te nag fii les écrits resteront clan Macky sàll li muy def nëbbatuwu ci daf koy def ci kanamu ñëpp ne fang fangaaral lan mooy sunu réaction ñun peuple sénégalais lan mooy suñu taxawaay dégg nañu nag ni le peuple est prêt parce que ñoom xam nañu le peuple est prêt ndax bëgguñu dem élection wóoluwuñu seen candidat bëgguñu organiser élection bëgguñoo bëre ndax jóge nañu ci Ousmane Sonko ñu ngi jéem pareeguñu te pareeguñu nag avocat yi dinañ leen ci wax lu leer. ndax ba tey mu ngi nekk suñu candidat parce que un processus électoral c'est avant pendant et après légitimité électorale ki koy gagné mooy ki peuple bi décidé si on empêche à notre candidat de participer accepterons-nous les résultats de ces urnes-là c'est une question qu'il faudra se poser su fekkente ne jox nañ leen toutes les preuves suñu ay candidats Bassirou Diomaye doyen Habib keneen ak keneen ñu am nu ñu doxalee ak ñoom est-ce qu'on ira à ces élections c'est des questions auxquelles il Mais mon message aujourd'hui, ce sera au peuple sénégalais. Mon message, c'est celui-ci. li waral lii yëpp ñuy dund ay nit ñu bëgg nguur ay nit ñu sàcc ay nit ñu luubal ay nit ñoo xamante ne dañu ragal seen ginnaaw bëgg fee toog ndax protéger seen arrière moo tax ñu défier ñu yor suñu alal yor suñu police yor suñu gendarmerie yor suñu loi yor suñu administration di ci def lu leen neex te nee nañu ñun mënuñ ci loolu dara te pourtant ñun ñoo leen fal jox leen pouvoir mais ñun bientôt yàggatul di si quelque jours on a notre mot à dina ñu taxaw comme le peuple sénégalais qu'on mérite parce que comme li ma leen wax sànq amuñu raison amuñu excuse fii parce que on est des gens civilisés ñoo njëkk a voté ñi ñi ñu noot on est devant l'histoire message bi ma leen di jox mooy nous devons rester debout nous devons continuer à nous battre lu tax ñu war a continuer di xeex pour la mémoire des Sénégalais qui sont tués pour la mémoire de Sénégalais qui sont morts en mer parce que dañu daw pour la mémoire des Sénégalais exilés des Sénégalais emprisonnés plus d'une de milliers de Sénégalais emprisonnés ñi ñàkk seen liggéey mais aussi pour libérer Ousmane Sonko pour libérer ces prisonniers politique parce que li jàpp Ousmane Sonko mooy lii di riir bañ bëgg confisquer seen voix loolu moo tax ñu war a continuer taxaw loolu moo tax ñu bañ a céder loolu moo tax ñu war a xam ni on est sur le combat politique parce que le président Ousmane Sonko l'a toujours dit ñu ngi jàcce nga ñu ngi ñu ngi jaajëfal bu baax ses avocats ils ont mené le combat juridique mais je me rappelle des mots de Ousmane Sonko ce combat est un combat politique mm-hmm. autant qu'il est juridique le combat juridique c'est le, le moment des robes noires ils nous ont honorés ils ont été ils ont fait notre fierté dans les tribunaux ils ont montré à quel point le droit est juste le droit vibre quand on est du côté de la vérité Mais nous aussi, nous avons un combat politique am mener. Et ce combat politique, nous allons le mener jusqu'au bout. Pourquoi Pour la mémoire de ce pays-là, pour l'avenir et pour ne pas être des lâches. Parce que nag fii jaam toogu fi bu mu yi dagg nañ leen bu yàgg na sénégalais bu nekk waajal boppam na sénégalais bu nekk jàpp ni moom mooy la solution ne sénégalais jàpp bu jàpp ni bu sëggee jooy bu toogee bu bàyyee bu xaddee na xam ni li mu doon xeex ñii dee ak ñi ñu toroxal lépp nax saay na on est face à l'histoire mais du Ousmane on moo nekk face à l'histoire seul parce que li mu leen waxoon la def suma destin c'est entre vos mains no destins sont entre vos mains tous les gens qui sont ici sont en danger ñii dañ leen takkal ay bracelet ñii dañ leen di persécuter ñii dañ leen di traquer ñii di leen tirer ay bal ñun ñëpp suñu destin dañ koo teg ci seen loxo loxo sénégalais yi c'est ensemble que nous allons nous libérer wala ensemble nous allons nërmeelu à jamais àdduna ñëpp reetaan kon nag chaque que chacun prenne ses responsabilités c'est tout ce que j'avais à dire maa ngi leen di jaajëfal di leen déglu. jërëjëf pardon. Mon, mon, mon discours en français ne sera pas long. Je veux tout simplement dire que le peuple sénégalais est devant un tournant historique, que tous les peuples sont face à leur destin et que nous avons euh, la même responsabilité que les autres peuples qui se sont libérés à écrire notre histoire. Nous avons été victimes d'esclavage, de colonisation. Nous avons été traqués dans le passé, mais aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses. parce que nous avons l'information, la civilisation, nous avons la santé. Nous avons montré que nous ne sommes pas une race inférieure. Nous avons montré que nous ne sommes pas un peuple inférieur. Nous avons la, la volonté et la responsabilité d'être au rendez-vous devant l'histoire. Nous ne devons pas continuer à dire ce que les Maliens ont fait, ce que les Guinéens ont fait. qui sont en train de régner dans ce pays, qui sont en train de régner dans ce continent depuis des décennies, que nous ne sommes pas leur sujet. Que nous ne sommes pas nés pour leur servir, que pour qu'ils s'enrichissent, nous ne sommes pas nés pour qu'ils bafouent nos droits, nos libertés. Ils ont tué, ils ont emprisonné, ils ont volé, ils ont, ils ont dilapidé nos ressources. Aujourd'hui, ils veulent emprisonner notre dignité et notre envie d'élire un homme qu'ils ont persécuté depuis des hommes et qui n'a de Ousmane Sonko est debout, il est il est, résilient, il a montré son amour pour ce pays. Le peuple sénégalais doit se lever à côté de lui, lui être le plus solidaire que possible. Et j'attire l'attention de la communauté internationale pour leur dire qu'ils sont complices. Ils sont pressés d'aller à travers le monde éteindre des feux qui se sont créés après des élections illégitimes. Mais ils observent que le peuple sénégalais est en train d'aller dans cette voie Nous ne nous laisserons pas faire. Avant, pendant, après, nous résisterons. Parce que nous ne sommes pas uniquement des, des descendants d'esclaves. Nous sommes un peuple libre. Nous avons toujours été libres. Nous voulons des élections libres, indépendantes. Nous voulons choisir notre destinée. Si certains pensent pouvoir comploter parce que nous avons des ressources naturelles, du gaz, du pétrole, certains pour pouvoir, pensent pouvoir continuer à piller nos ressources et pour cela ils acceptent. qu'on écarte des candidats qu'on a choisis, qu'ils sachent que devant eux, ils auront le peuple sénégalais. Qu'ils sachent que s'ils sont en danger dans ce pays, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de ceux-là même qui leur mentent, qui leur font croire que nous sommes des dangers. Nous ne sommes pas des vents en guerre, nous sommes pour leur pays et pas pour d'autres continents. Donc que la communauté internationale sache que si dans ce pays, notre volonté n'est pas dit, leur devenir avoir leur industrie, avoir leur, leur, leur, leur, économie, tranquillement, au sein de notre pays, pendant que nos enfants meurent dans la mer, meurent dans l'exode rural, meurent dans, dans l'immigration clandestine, sont enfermés dans des clans, dans des camps de, de, de, de rétention. Il faut que cela cesse. Nous voulons nous libérer et nous avons le droit. Donc, qu'ils se ressaisissent et qu'ils comprennent que ak dire au président Macky Sall de regarder et de faire le droit c'est tout simplement tendre la main à ce peuple qui a toujours été pacifique le Sénégal est un pays pacifique les Sénégalais sont un peuple pacifique nous n'avons jamais été violents nous ne voulons pas de la violence nous ne voulons pas de violence post-électorale et pour éviter cela pour éviter cela il faut organiser des élections libres et transparentes et qu'ils qu'ils arrêtent qu'ils arrêtent de traquer les gens, qu'ils ne pensent pas que c'est en arrêtant les gens qui sont sur cette table-là qu'ils peuvent arrêter cette volonté de ce peuple sénégalais-là. Le peuple sénégalais a montré en être pire que tous les autres peuples quand il est dos au mur. Maintenant, foofu lay yemale mbir mi et dire que maa remercier. Merci, euh, merci